salaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi euh, sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom mi nga xam ni euh, mooy rabbul samawati wa fil ardi réew mi yàlla na fi jàmm wàcc ak àdduna bi yëpp di ñaan Covid 19 bii am suñu borom euh, yow rek yaa ko mën a fànq yàlla suñu borom yàlla nga ñu ko fànqal dàkkal ñu ko di tamit. Euh, sensibiliser rek muy sénégalais yi ne fii ak yi nekk ci diaspora beeg àdduna bi yëpp euh, ñu gën a respecter mesures barrières yi rek buñ ko respecter rek di ñaan suñu borom yaakaar naa ni incha allahu rabi Covid bi dina jàll bu baax a baax beneen bi aussi di jaale euh, suñu waajuru rakk yi nga xam ni ak jarbaat yi nga xam ni fan yi dañoo dugg ci géej gi ñu ci bëri ñàkk seen bakkan. ñu ngi jaale seen ay waajur di leen ñaanal yàlla leen yàlla xare àjjana di ñaan yàlla yàlla wàcc ci àdduna bi yëpp jàmm waaw Bachir euh, ñu ngi lay nuyu bu baax ndax lépp loo gis rek dafay tàmbale ci ñaan ak tam masaw li nga xam ni moo jot am ci àdduna bi ku ne xam na ne Covid bi fi ñu toll nii dafa lëmbe àdduna bi Bachir ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, waa wasaare euh, TV wasaare làmb ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di kontaan tey ci seetsi bi ngeen ñu seet si man nag maay Cheikh Ahmadou Bamba Mboup euh, ñu gën ma xam ci Bamba bu production suma label waaw euh, di président association formation insertion des lutteurs du Sénégal di promoteur culturel et sportif di ngi leen nuyu bu baax Bachir. Cheikh Bamba ci sa biir nuyoo da nga mbëkk meeg ndaw ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan. Mhm. mel ni projet boo ñu bëggoon nga waaw projet bi moom Bachir comme ni ma koy waxee saa su ne te yàlla dafa def ñun ay immigré lañu woon bi ñu nekkee ay xale bi ñu nekkee xale lañu lañu dañu teel a tukki mais bi ñu demee yàlla baaxee ñu ñu yàgg bëgg a liggéey sécurité. parce que loolu yëpp boo gisee ñu bëgg ko mooy xëy na juddoo ci millier boo xam ni milieu euh, dëkku làmb la parce que ñun euh, ay doomu Fass lañu maggee parcelle ba pare tamit suñu cosaan di Bawol yàlla def bi ñu demee doon fa def sécurité mais laata ñuy def sécurité dafa am benn agence mooy liggéey bu ma doon liggéeyee ak Rome tudd Global Consulting maanaam agence boobu noonu ñoom balaa balaa balaa ñu laa bala nga fay commencé liggéey dañ lay tàggat il faut nga formation professionnelle ci laa fa def une formation de six mois bi ma ko defee ci laa fa commencé liggéey naa yàlla def nag dañ ne tukki jom la waaye ñibbisi fula la yàlla def nag ma ñibbi si Sénégal bi ma ñibbisee senegal nekk un nekk un promoteur dem CNG wut fa licence euh, bi ma wutee licence commencé tëgg ay gala de yu mag ci banlieue bi mais ma dem ba am lu ma saytu mujj bi xale yi ñoom ñëpp di ñëw suma kër euh, bu ñu ñëwee xamal ma ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi bëri waaye euh, mën nañoo toog atum lëmb du ñu bëri am na ci ñoo xam ne dañuy du ñu bëri ba pare te aussi tamit amuñu métier. te ku ne xam na ni nit ki bu fekkee ni entraine na macha allah am doole bëriwul amul métier buñ bu buñ ko encadré wul rek mën na jël un mauvais chemin ci leen neen nag sport baax na lool ndax ñun dañoo bëgg làmb mais nag nit ki dafa war a am métier parce que làmb baax na mais dafa am benn carrière boo xam ni foofu lay yem yéen ñi nga xam ne nag ay xale ngeen euh, euh, il faut ngeen am métier. ci la ñu am benn euh, ci la ñu ci la ñu benn ci la ñu initier un lutteur un métier biñ ko initier nag ma waxtaan ceeg waa axlu làmb wax dëgg yàlla de passage ma ci nuyu euh, kilifa yi nga xam ni macha allah tey ñoom laa ci àndal. Euh, muy association bi nga xam ni moom la ñu créé muy FILS di formation insertion des lutteurs du Sénégal ma ci gërëm suma papa Mbaye Guèye di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati te delloo ko wér moom mooy suma vice président di ci nuyu Ibra Mbaye mi nga xam ne mooy entraîneur écurie Fass di ci nuyu bu baax Aliou Baax mi nga xam ni moom mooy suñu suñu suñu chargé des des des écuries des écoles de lutte di Magu Bàcc Seras di ci nuyu Jaga Jaaru Cuun mi nga xam ne mooy agent Tafatine mooy mooy mooy chargé des relations extérieures di ci nuyu Ibrahima Li Abouli bu Dalifor mooy sama secretaire général. di ci nuyu bëgg fàllu bu Grand Yoff mbooloo mi nga xam ni mooy président comité d'organisation bi di ci nuyu Amadou Cissé mi nga xam ni mooy bu ANAMO mooy suñu président comité formation insertion di ci nuyu Serigne Babacar Mboup ak mbay sàll mi nga xam ne ñoo yor euh, communication bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci association bi lañ bokk bas ci la ñu taxawal un lutteur un métier biñ ko taxawalee nag suñu xalaat daal ne nit ki dafa war a am métier mbër bi dafa war am formation am insertion ci la ñu euh, wootee euh, waxtaan bi ñu waxtaanee nag dem waxtaan ceeg CNG président Alioune Sarr mu rafetlu ko ne moom lu mu yàgg digal mbëri la ne mbëri dañoo war a am xëy dañu war am formation am insertion bien vrai que am na ñoo xam ne tey fi ñu toll ñu ngi seen métier mais ñeneen ñi nga xam ne jotuñu am métier te ñu ngi bëre ñu préparer seen ay carrière ëllëg yàlla def euh, wax dëgg yàlla yàlla dimbali ñu bi ñu taxawee taxawalee loolu mu neex sénégalais yëpp ñëpp bëgg ci euh, ci la ñu euh, def benn lancement bu mag bi ñu ko defee nag wax dëgg yàlla ànd seeg suñuy partenaire si la ñu seeti ji le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi di daam Diop wax dëgg yàlla mu rafet lu xalaat bi ne moom dafa nekk mbir moo xam ni président de la république daf ko ko wax nee ko bépp jeune bu nekk Sénégal rek bëgg naa nga dimbali ko ba mu am formation professionnelle tey man su ma ñëwee ñu am association boo xam dañu am suñu récépissé légalement bëgg jàppale xale yi pour ñu am formation professionnelle moom Dame Diop na si sawar wax dëgg yàlla décembre euh, euh, décembre deux mille dix-neuf bii passé moo njëkk recevoir à Diourbel Euh, ñu def fa forum bu mag a gala de ba mag boo xam ni Bachir yéen ñi yéen a ngi fa woon bañ fa jógee wax dëgg yàlla ci la woo mbooloo mi direction am directeur yi fa nekk yëpp di nuy sama xarit Pape Modou Fall euh, muy yor direct muy nga xam ne mooy directeur de l'emploi suma frère Maodo Malick mbay mi nga xam ne mooy directeur général ANAMO suma frère Souleymane Soumaré mi nga xam ni mooy directeur général ONFP office national formation professionnelle ak Abi mi nga xam ne mooy 3FPT ñu jox leen instruction ne leen Bamba mission bi mission état la ñu ñoo ko waroon def tey moom bu taxawalee kuréel nekk ne bépp mbër bu nekk Sénégal bëgg na la former kon nañ ci ànd ak ñoom ma leen ciy gërëm ñu nekk ay ay partenaire technique parce que tey ku ne xam na ni école de formation professionnelle ku fa mën a dem booy dem da ngay fay da ngay mais ñoom bu ñu ko yombalalee ba mbër bu ci bëgg bokk da ngay jënd carte de membre 2000 francs rek formation sécurité garde corps rapproché ku ne xam ne ni boo demoon di ko fay di nga fay 400 wala 500 mille ñun ak association bi ñu lënkalool def convention gratuitement la kon loolu ñu ngi leen ciy sant yàlla def nag jot nañ fi def ay mbir parce que ak ANAMO jot nañ fi def ay formation sérigra sérigraphie ci 30 lutteurs ak euh, ONFP jot nañ fi def ay formation sécurité garde corps rapproché def nañ ko fu Foundiougne def nañ ko dakaar fii franchement Dakar ku ne xam na ni am na mbër yu am coow yu ñu fi déggoon yoo xam ne def nañ ko ñun. ko ci mel ni caatu yaraax ñoom ama amandaw ñoom yaawu jaal ah ñoom njaga doole ñoom Youssou Ndour ñoom Fourier ñoom ñëpp def nañ ko ak tiijaan Faye tey bu ñu demee ba làmb am fonctionnaire ci kàttanu yàlla euh, wax dëgg yàlla kooku dañ ciy kontaan tey c'est grâce à l'association FILS parce que dañoo toog rayante ba am suñu convention ak état tey bu ñu demee ba Tidiane Faye ak caatu yarax amandaw ONFP di ci lance di ci remercier encore sama frère Souleymane Soumaré embauché leen directement ba ñi ngi fay liggéey kooku sant yàlla te noonu lañ ko bëgg a toppee ba mbër yëpp ku ci nekk am foo xëy am métier loolu noonu yëpp ñu ngi ci Bachir di ci di ci di ci dox ay jéego actuellement nag euh, ku ne xam na ni jamono gi euh, biñ fi defee forum yi euh, temps yi ak gaal gi ni mu méttee xale yi dee xam nga mu metti lool ñun. dañu dund immigration ñëw Sénégal aussi euh, di bëgg tàggat xale yi ci formation insertion loolu bu ñu ko gisee aussi tam war nañu mën a am suñu slogan Euh, def ci euh, benn conférence de presse euh, def nañ ko nag samedi bi passé ma ànd kook sama frère Mbaye Sall muy tekki fii sans mbëkk mi ndax nit ki war ngaa mën a toog fii tekki fii def nañ ko samedi wax dëgg yàlla de passage di ci nuyu la ministre de la jeunesse Fatoumata Néné Tall moom it mu nekk ku ñuy jàppale événement bu ñu am ñuy defaral ay t-shirt di ñu ko di ko jàppale ministre daam Diop aussi ñu ngi koy remercier ministre Matar Ba ak euh, ministre du tourisme transport aérien parce que ñoom ñëpp ku ci nekk bëgg nga jàpp ci formation yi sama frère Alioune Sarr ministre du tourisme moom dafa am ay formation yu mu muy hôtellerie restauration guide touristique yooyu noonu yëpp nee na bëgg na sekk ak fis convention pour tamit dimbali ci xale yi yooyu noonu yëpp daal Bachir ñi ngi ci di ci góor góorlu daal pour daal suñuy rakk ñoom ñëpp ku ci nekk mën a am ci loo jàpp tekki sa mbëkk tekki sa mbëkk mi euh, euh, dafa nekk benn slogan parce que ku ne xam na ni jamono gii nii gaal gi ñi ci faatu bëri na te xale yi ñoom ñëpp macha allah bëgg wuti ju jom rek moo leen ko tax a bëgg def mais tamit euh, dugg ci géej du solution parce que bu ñu demee ba kilifa diine yi wax dëgg yàlla ak kilifa kilifa kilifa yu mag yi di ko méngale ak xaru. kon nag loolu c'est à revoir parce que xaru ku ne xam na ni euh, ku am ngëm-ngëm ak lu suñu borom wax war nga ko mën a moytu dëgg la ñoom ñëpp dañoo bëgg dem daani seen doole tekki mais Sénégal toll nañ foo xam ni bu ñu demee ba ni pétrole bi mu ngi fii bëgg a feeñ ak yeneen ak yeneen ak yeneen kuréel yu mel ni ñun daal muy association FILS ak yeneen kuréel yi nga xam ne dañoo bëgg a tàggat xale yi pour ñu am xëy dañu ñaan xale yi nañu rapproché wu ci ñun bu ñu rapproché woo ci ñun xëy na amaana dinañ leen teg ci yoon boo xam ni lii ñu defal mbër yi ba ñu am bu bëgg am xëy loolu bu ñu ko defee ñoom ñëpp ci kàttanu yàlla dinañ am réussir réussit waaw di lancer message aussi euh, Bachir le président de la République président Macky Sall ndax association FILS tey euh, wax dëgg yàlla mi ngi ciy dox ay jéego yu mat. parce que man su ma bàyyee bitim réew bi may jógee bitim réew du ñëw Sénégal suma xarit yu bëri ak sama mbokk yu bari bëri d'accord ñu woon dañoo bëggoon foofu ma toog fa gën a daan sama doole pour jàppale samay mbokk jàppale sama soxna mais man leen ñun Sénégal lañu am ndax Sénégal mooy réew la boo xam ne nii ku toog góorgóorlu rek di nga am dara. 11 ba 2020 ñu ngi fi di góorgóorlu franchement di bëgg jàppale xale yi tey ñi ngi gërëm les partenaires techniques parce que dañu ne partenaire technique xëy na état bi ñu signal convention ñoom ñu ngi ñuy jàppale pour xale yi am formation mais ñun suñu yéenee te ñi ngi ci 14 région Sénégal yëpp la bëgg wër tey association bi forme mbër yi sensibiliser aussi xale yi euh, ci ñu euh, ñu ñu bañ a dugg ci gaal gi def ay forum kon nag yooyu ñun bu fekkee ni wax dëgg yàlla association bi amuñu moyens yi te ñun li ñu bëgg rek mooy jàppale ci kilifa réew mi kon nag ñi ngi koy tàllal loxo man Bamba Mboup président association formation insertion des lutteurs du Sénégal te nga woote dialogue dialogue insertion fi ñu ni moom nga wootee parce que boo sañoon xale yëpp am xëy kon nag président de la république ñi ngi lay woo yow ak sa mbooloo mi ministère yi nga am ak tamit les secteurs privés pour ñu dooleel ñu parce que bu ñu doolelee yaakaar nañu ci ñi nga xam ne bëgg nañu jéemale réew mi kanam ñun ci lañ bokk Bachir